La Fraîche moi ànd c'est yéen ci Bar officiel. La Fraîche, le meilleur choix. ngaa def jaay nag na sa xool sedd na sa bamba naat bu xam benn stress loolu ñaan sere stress ndax yow sere stress nga dund ak Sénégal kon nag sere stress nga war dund ama ngi a attama sooram woo naa ñëpp Sénégal yëpp jox nañ la kàddu ñëpp nee nañ yow a ñëpp nee nañ baax bu nekk président ñun kontaan nañu suñu xol neex na ñu ne ko loolu dëgg léegi nag baax yaa ngi ama am suffit de président géej gi des ñaar dërëm rasulaay jërë ngeen jëf lii rek dal na xel waaw waaw lii dal na xel ndax réew mi toll na foo xamante ni dëgg la dafa laaj li nga xam ne mooy jàmm waaw laaj salaam lay jàmm ji xam nga mooy lan mooy lan ku feebar faju laaxatu ko baax yaa jërëjëf ku ñu tëj ci prison yi ci erreur nañ la war a génne yaa facteurs yi courant yi nañ ko wàññi ak ndox meeg ceeb bi gendarme yi nga xamante ni dañoo amee jabar ñu yokk seen salaire. nga ni ah dëgg gendarme yi nga xam ne amuñu jabar nag nañ seen salaire nañ ko def crédit di leen ko envoyé ndax doy wuñu. loolu jaadu na waaw waaw loolu jaadu na. jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf. am na ci waykat yi nekk Sénégal. waaw bés su ma faloo. Mhm. ñoom ñëpp ay garde pénitentiaire laa leen def ndax seen amuñu talent. waaw waaw amuñu voix yoruñu instrumental bu baax. am nag moom dégg nga. ministre de la culture moom ko koy def. kooka la am am bis ni ki tey man kenn mosumaa yëngal. waaw man caaxaan yëngalu ma. mukk dëgg la je suis le roi des arènes. waaw waaw couronne bi maa ko téye. waaw yaa tee kuur kenn du yow caxabal mboot. mënul ci yow dara bi mënul ci yow dara waaye tey da ngaa wéyale. waaw waaw kon sama xol seet na ci yow. loolu wallaahi. Eh, yaa ma ne fu ne waaw waaw. léegi bés boo gis mhm. am na ko ko moom waaw loolu wér na loo gis am na parrain waaw bis la fay loo gis am na kuñ ko jagleel dëgg la kan laa jagleel sama président muy kan mooy parrain bi kooku mooy Zeking Maam Fall l'homme social waaw waaw waaw

nekk na fi président. dëgg la anoon Uwaasi Niiga mi ko naa. waaw kooku acteur film la. comme yow. dib comédien. nekk na fi Californie gouverneur. te Amérique boo seet gouverneur ñooy nekk président. kon nag mën nga koo ne. bu ko xalaat. mën nga ko ne léegi. bu ci inquiété wu Maam Fall waaw wallaahi mi nga xam ne sama xarit l'homme social xarit ñëpp wallaahi xarit àdduna bi xarit Sénégal di jox ci ndimbal te du wane boppam wallaahi tiitaroowu ko mokk doxewu ko wallaahi kooku dafa nekk koo xamante ni kenn la ci man Zeki maam Faat mi nga. loo ko bul jooy bul jooy. bul jooy loo ko naawee. man lu baax li loo ko naawee. mooy social bi loo ko naawee. dafa baax voilà bul jooy dara yaa ci saa yi. loo ko naawee dara yaa ci baati. loo ko naawee dara yaa social. loo ko naawee eh, xoolal dootul métti dootul métti dootul métti. Eh, doom bi ci jënd jërë ngeen jëf man nag damay président boo xam ne nii ah. xaw ma maye ah, dal maye nag ah, xaw ma joxe eh, dee ko xam ndax da ngaa seq ak ñoo xam ne dañuy joxe muy sëkkin Mame Fall réew mi toll foo xam ne naes waaw dama fi tere baatare nga ni dama fi fa pare mbumbaay nga ni dama ah ñoom am duñ kontaan ci loolu changel discours boobu changel discours boobu baax am su ma la dóoree seec nag dama la baatare ah waaw changel discours xam nga lan maay sa géwél du ma la seetaan wuy ma lii yaa ma ko dénkoon sànq baatare la ñoom am ñi mérite nañu li yaa ma ko dénkoon. baatare moo lu mu nar. baatare waaw waaw président baatare waaw ndox mu koy nii waaw baatare bu mu ànd am rek koy defal na am rek fa sawaay bu mu àndal dimbali baatare waaw waaw jël yëfu dem ba dem jox ko Talfa yàlla du juum yàlla du juum yaay gaañe yàlla du yaay gaañe masa masa ngeen baal ma ñaari junni kaay ngeen baal ma ngeen baal ma waaw damaa xër neen daa xër sama xol seet ci yéen moom président xolam daa féex ci yéen bu ngeen am amul xel dëgg-dëgg nee na bu kaka moo leen xel tey gàcce dina am. nee na kon tey jii gàcce dina am. xam nga lu taxa lu taxa damaa joxe ba joxe sans passe. waxoo jàmm président am ngeen dimbali ma président da joxe paasam. waaye ñëwal non nangu ma ko damay xool. da leen lii baaxul ci yéen baax na kay kaay leen rek. damaa joxe ba joxe sans passe. kaay leen daa joxe joxe paasam. ma xoolaat ko sama man la yor. baaxul ci yéen beneen bongo waaw am xam nga nu ñuy def. Ah. bu ñu làq ci dinaa leen jox ah, paas. day dem day dem ñëwal waaw paas la rek dinaa leen joxaat tama dugaloo ko sa dama bi. tama du jël dara. suba spécial The King Mame Fall. jeex na kon nag maam yéen ñëpp. subaay a neex. suba spécial The King Mame Fall ah. ak président le vice président di nga xam waa yi Sénégal ambiance na la fraîche Moi, ànd ak c'est ci bar officiel. La fraîche, le meilleur choix.